mbokk yi imaam mu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullah di leen ziyaar bu baax di leen ziyaara bu baax di waaye di leen ndokkeel ci julli gi nga xamante ni ci julli gi nga xamante ni mooy julli korite bokk ci teraanga yi yàlla defal ci teraanga yi nga xam ne moom la yàlla defal ummatu ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ñu fas yéene rek dem ca jumaaja fii kër Masamba Gueye ànd ko ak waa dëkk bi ak waa gox bi yëpp ak dëkkandoo yëpp nag ne mu ngi ñaan yàlla yal ko yàlla jaarale fa mu ko daan jaarale ci barki yonent bi ci barke alquran magu jàkka ji ñoo toog nii teewal fi fa tabaarakallaahu ñeneen ñi nga xam ni ñu nga ca jumaaja di ko nekk moom imaam kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko àggaleeg sunu sago bismillah ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آمين. وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا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 di leen baalu xaq. nee na di leen baalu xaq. te di leen ko baal. nee te di leen ko baal. di ñaan subhaanahu wa taala. di ñaan subhaanahu wa taala. yàlla nañu boole defal njëggal. ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla nañu yàlla boole defal njëggal. di ndokkeel bu baax. imaam nee mu ngi ndokkeel bu baax. ummatu sayyiduna muhammad. ummatu sayyiduna muhammad. Serigne salih Touré. nekk fii ci dëkk bi. nekk fii ci Thiès. njabotam yep nak nag. ak njabootam yépp nag. ziyaar suñu baay. neena ziar suñu baay. alxaaji Mouhamadou Muniru Njegen. alxaaji Mouhamadul Muniru Njegen. xalifa alaaji Ahmad Njegen. di xalifa alaaji Ahmad Njegen. di xalifa alaaji Ahmad Baro. di Ahmad Baro. ak ak ba Muniru Njegen nuyu fa nuyu fa bu jàmm gën fii. ak yëpp nag. ak njabootu Cherif Cheikh na Abdou Aziz Aydara yëpp. Fatabaarakallaahu. imaam ne Fatabaarakallaahu. ziyaara suñu kilifa. ziyaara kilifa gi. di alxaaji Idrissa Gay. Gay. ko ci loxo magam. nee na mu tagal ñu ko ci loxo magam. alxaaji Mouhamadou Moustapha Gay. alxaaji Mouhamadul Moustapha Gay. di waa jumaa ji yëpp nee di nuyu waa jumaa ji yëpp nag. ci njiitalu suñu wayjur yii. toog. Assane Ba. Baye Assane Ba. Baye Mamadou Ba. Baye Mamadou Ba. waaye ziar tamit. waaye ziar tamit. sunu soppe. sunu soppe. sunu wëllëre. di wëllëre. di imam Thiam. di imam Thiam. di ko ñàkk ki ñaan. di ko ñàkk ki ñaan. ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm. ak mbokk yi ñu seqal néegu yàlla bi. ak mbokk yi ñu seqal néegu yàlla bi yëpp. julli gi nag ñaari rakka rakk bu njëkk bi. rakk bu njëkk bi. juróom-ñaari kabbar la. juróom-ñaari kabbar la. soo ci boolee takbiratul ihram. soo ci booree kabbaru armal bi. ñaareelu rakk bi. ñaareelu rakk bi. juróom-benn kabbar la. juróom-benni kabbar la. soo ci booleewul kabbaru jugaale bi. soo ci boolee kabbaru jugaale bi. su nee na kon su ko defee rek. bëgg a amal. moom la bëgg amal. bu ñu suñu paré nak def khutba bi. def khutba bi. dara du ci yag insha allah. dara du ci yag incha allahu rabbi. ñu teewlu ko rek. nee ñu bokk teewlu xutba bi nag. mën a message bi ñuy jàllale. mën a message bi imaam fas jàllale. dëkkandoo yëpp yi fi tew yep ñu ngi leen di nuyu. ñom Alxaaji Xasan Diouf. ñoom Alxaaji Xasan Diouf. Seydina Alioune. Seydina Diop. na fa tabarakallah ñoom نانا نيوم كامارا حاج مالك با حاج مالك با فتبارك الله حاج فيصل نانا فتبارك الله حاج فيصل اك دكندو ييب بسم الله نكون بسم الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكر فيذكر من يخشى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 الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله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 أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أرسل إلينا خير خلقه وخاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الآية تحذر من الفساد بجميع صوره وأشكاله وأنواعه الفساد الاجتماعي والاقتصادي والإداري والسياسي الفساد الذي هو استغلال الوظائف العامة للمصالح الخاصة الفساد الذي هو ضياع الحقوق والمصالح الفساد الذي هو الغش بجميع صور وأشكال هذه الصور التي رسم الله عز وجل لنا في الكتاب الكريم خبر أقوام أفسدوا في الأرض فنزل بهم البلاء ينبغي أن نعلم هذه المسألة أن سنن الله لا تحابي أحدا وأن الأمة إذا حادت عن الطريق المستقيم نزل بها البلاء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عباد الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا mbokki julit ñu ngi leen di ndokkel ci fet bi nga xamanteni fetu ummatu sayyiduna muhammad la sallallahu alayhi wasallam yàlla may ñu ñu wor fan wéri fan ndax yonente bi mo ne sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma fa akmilu salasin wor len su ngeen gisee weer bi bu ngeen gisul ba jant bi muuru matal leen weeri fan soob na yàlla ñu woor fanweeri fan soob na yàlla am ñu woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaye loolu lépp yërmande yàlla la yàlla na yàlla nangul ñëpp ndax yàlla mi nga xamante ni moo feeñooloon weer wi ba adduna bi yëpp woorandoo su ko neexoon defaat ko noonu àdduna bi yëpp waree ndoo kon am na loo xamante ni jarul polémique am na loo xamante ni jarul yàq sa jaamu yàlla wóori nga si ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent bu mu tax nga taxaw média yi tiim la ngay saaga ñi fas yéenee matali weer yow mi nga xamante ni wóor nga fanweer bu mu tax nga bëgg a saaga ñi wor juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñeent na kenn ku nekk. yéene sa bopp jàmm ñaan yàlla mu nangul la ñaanal sa moroom yàlla nangul ko jaamu yàlla yi maa ngi leen di dénk ci occasion bi nga xamante ni la yàlla dajalewaat fii ci néegu yàlla bi ci kër sàmba géy mooy di dénk sama bopp di leen dénk ñu ragal yàlla ci lu nëbbu ak lu feeñ maa ngi dénk mboolem jullit li yàlla ne dee leen wax dëgg te ngeen di wax li nga xamante ni mooy wax ju jub jaamu yàlla yi xutba bi ñu bind li ci ëpp mooy li yàlla ne géej gi yàqu na jéeri gi yàqu na adduna bi jaxasoo na lan moo ko yàq ñu ne xanaa jikko yu bon yi kon mbokk yi nañu defaraat suñuy jikko yéenante jàmm yii ñuy jëfandikoo muy réseaux sociaux yi ak mën a doon di ci yàq deru góor yi maa ngi profité ci occasion bi nañu ko bàyyi ci ko nag réew mu ngi yàqoo bu ñu demee ba sànq àqu doomu aadama maa ngi ñaan ñu jiite réew mi maa ngi ñaan kilifa diine yi maa ngi ñaan borom kër yi kenn ku ne nañu ko jox xàqam ndax yàlla ko maandu la kon nañu maandu ci jaamu yàlla yi kenn ku ne bu ñu ko joxee ak xam suñu Sénégal naat suñu Sénégal jëm ca karaw baadoole bi ñuy woowee baadoola ngir lan amul ah, bu mu tax ñu xañ ko xaq xam yow mi nga xamante ni yow lañuy woowee ab notable ndax sa am-am bu mu tax ñu jël dëggu jàmbur teg ko ci sa loxo jaamu yàlla yi nañuy maslaa ci lan dëgg bokk na ci jikko yu yàqu yi li ñuy wax alxichu mooy corruption. corruption yonent bi ne yàlla rëbb na kii ger waaye yàlla rëbb na kañuy ger branche moo mën a dem ci àdduna du ma ne fépp nag waaye bëri na ci ñoo xamante ni ger gi yàq na seen jikko ger gi yàq na seen lépp da ngay dem ci bërëb di lijjanti nàngam soo deful ndànk ñu ger la wala yow ngay jéem a gere wala nga fekk gor su toog ci biroom di liggéey proposé wulla dara nga ñëw bëgg koo ger ngir la ab kayit booy toppatoo wala dara jaamu yàlla yi nañu maytandiku loola kenn ku ne na xamante ni corruption day nasaxal réew euh, bokku na ci li nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax bu ñu demee ba ger bari ci réew jikko yu yàqu yàlla wàcce fi ay balaa ay musiba xawma kenn mooy fàtte musiba bi fi jóge woon muy corona waaye waa adduna du ñu ko fàtte yonent bi su jikko yi yàqoo corruption bañ bari ci réew xañ jullit wala xañ doomu aadama ak su boobaa yàlla wàcce seen kaw ay musiba yoo xamante ne du ngeen ci mën dara bu ñu demee ba jullit yi wàcc li nga xamante ni yoon yoon bi nag mooy alquran mbokk yi nañu dellu ci waxu yàlla wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama jullit piir dëgër luwaayam wéeruwaayam mooy alquran yàlla de waxna ci alquran ne duma soppi de ludul na ngeen a soppeeku bu ngeen soppeekoo ah ma soppiku rek man yàlla indi len lu baxul ci yéen yàlla nañ ci yàlla musal yonente bi alayhi salatu wassalam dañu won ya ma'shar almuhajirin khisal khams ida btulitum bihinna wa a'uudu billahi an tudrikuhunna lan tazali alfaxisa fi qawmin xattun xatta yuclinuu biha illa fasha fihim والاوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مدوا ولم تنقصوا المقيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول سيدنا محمد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعد ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم جاموا يلي يرنت بني ينسى مخيب ميتولين جكوي دال سينكو بياغ بني مانغي نان يالا بوم لين دال نينا بونيو ديمي با نياو تيف بري تي a ah, su boobaa tiit leen xool leen coow lu am ci réew mi ay doomu aadama tuddee seen bopp lan topp kaa lan mooy topp kaa mooy wuññitu sikku doomu aadama bilipande ko ci nen jël ko tasaare ko ci àdduna ndax loolu jullit bu baax war na koo def ashghaltum bi uyubi ixwanikum fala tarawna uyuba anfusakum yeneen bi soo bëggee topp kaawu nit tenga xol ka yi nek ci yow te yàlla suturaal leen yeneen bi ne bu ñu neme ba gën tollu fofu rek rëbbug yàlla dal sen kaw ay febar ak métit yo xamanteni daanul dal ñi len jitu dal sen kaw bu ñu neme ba ñi jaay di jëngal sen balance nako yàlla waxe wayru lil mutaffifin allazina iza ba aaya badanu jaayatu ñu ci mandu su boba yàlla téye tawam sécurité dotul am bu ñu xañee azaka ñi ko moom yàlla ne su boobaa ah, taw dootul wàccati azaka nag lan la suuf si yàlla ci jamono Omar ibn Abdul Aziz woon na loo xamante ni boo génnee azaka da ngay am problème mu koo ko jox ndax ku nekk nekkoon situation yu baax waaye génn sa azaka dem jox ko maa ngi koy yóbbul sama sëriñ wala génn sa azaka maa ngi koy jox koo xamante ni moo la ëpp alal déedéet. يلا وخنا نيموم ازكا انما الصدقات للفقراء والمساكين بايا بدانو جروم نيت ньо خامتيني ньо موم كوم ازكا يي نانكاي جوخ جوكو موم ني ديلو وات اتيو ليغا خامتيني موي القران اتيو القران نك موي لان دك يونتبي عليه الصلاه والسلام تي دك لا اتي جام يلا يي تي ليغا خامتيني موي يقوت جامونو تاي ان من اسباب الفساد ضعن الدور التربويه للاسره فكثير من الأسر تركت الحبل على الغارب للأبناء والبنات فلم يتربوا على المراقبة لله تعالى ولم يقوم بدورهم ومسؤوليتهم جامو يا الله بروبليم السنغال تاي موي ين كليفاي داو نان سين ريسبونسابيلتي تي سين نجابور لي نان باينا بومبي ديدت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كين كو نيك سامغا نغا غورغولو با سامو bu yowmal qiyaamee buñ la ko laajee fekk nga teg ko fu baax barakallahu li wa lakum bil qur'aanil aziim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi al ayat wa dhikril halim aqulu ma tasma'un واستغفر الله المولى العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروا انه هو غفور رحيم الله اكبر كبيرا والحمد لله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فقد انتشرت ظواهر سيئة في جميع نواحي الحياة من غش وكذب وجشع لا حد له وماتت فضائل كانت عند الناس في قمة أولوياتهم كفضيلة الكرم والتواضع قبل ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون